référence plateforme d'information. dañu koy doore mariage abinduur Abindour Abindour marié na Abindour di rakk ci Youssouma jigéen dégg na alxayri Abindour léegi madame laay lay wuyoo ka ko takk di ab laayeen boo xamante ni bi démb ñoom ñaar seen mariage doon nañ ko célébrer ñu koy célébrer ñu seen fa Youssouma jigéen mu ñëw ndoorkeel si rakkam waaye daal di ko ñaanal daal di ko dénk ay kàddu itam ba pare daal di ko ñaax li gën a doy waar ci waxtaan wi te daw yaram mooy Youssou Ndour ci boppam jàkkaarloo nag Abi Ndour ne ko ma waxoon loolu itam moom laa jàpp ba tey ndax itam nee nga ma yuusu ma ne naam ma sëy bi laa fas yéene nekk ba abadan loolu itam dal na sama xel te itam dal na xelum képp koo xamante ne bi teew nga ci bés bi kon nag maa ngi lay ñaanal yow sama rakk jii di abindur Ndour sëy bi barkeel te mu doon sa njiglaay Aby Ndour ka ko takk di wuyoo turu Babacar Laay wax leneen lu soxal Mbathio Ndiaye Mbathio njaay confidence yi nga xamante ne bi def na ko ci émission confidence confidence yu daw yaram Mbathio Ndiaye nee am na benn période boo xamante ne bi métti woon na lool ci moom métti lool tar ba nga xamante xamante ni bi yenn saay sax laawul am lu mu faye location huissier da daan ñëw ngir bëgg koo génne mujj gi daf daan jël ay bagaasam maanaam ay meuble di ko jaay ba dootul amati fu mu tëdd yenn saay sax dafay lal basang daal di ciy tëdd wala sax mu daal di tëdd ci suuf ngir ñàkk goo xamante ni bi ñàkkoon na ko moom Mbathio Ndiaye Mbathio Ndiaye lii la mi ngi ko def ci émission confidence Mbathio Ndiaye ba muy wax wax jile daanaka ay ronxañam xaw tuut mu dal ci kawab dënn bu weesoo loolu itam Mbathio Ndiaye wax na ci Mame Matar Gueye Jamra nee na Mame mooy ki ko njëkk a indil plainte plainte ba itam la ko waraloon mooy dafa demoon ci benn soirée boo xamante ni bi ka ko tëggoon moo di Aziz Ndiaye te Pape Diouf doon way soirée ba ca King Fat Place Mbathio Ndiaye nee na foofa lañ ko njëkk a photo ba moo def lépp ndax moo sëgg ba ci suuf di ko yurndu daal di ko photo a ba mu génnee mu daal di doon ay photo yoo xamante ne bi photo yu ñaaw a ñu di ko partagé fépp ci réseau social bi li lee waral maam Matar Gueye Jamra daal di ko indil plainte moom Mbathio Ndiaye Mbathio Ndiaye ci gàttal ma ngay wax ne ak dundam amul lenn loo xamante ni bi yomb na ci ndax itam dafa jaar fu metti foo xamante ni bi lenn rek la doon xalaat ngir sama ëllëg man Mbathio Ndiaye nan laay def fan laa jëm ak sénégalais yi ndax itam période yi may traversé metti na metti goo xamante ni bi ndax ëllëg itam dinaa dundu ba traversé li nga xamante ni bi maa ngi koy dund man Mbathio Ndiaye wax ci Edu Ndaw mi nga xamante ni bi mooy Cheikh Fama Thioune Edu Ndaw ñu gën ko xam ci Bouba mu nekk Evon Prod jeune fi série boo xamante ni bi série infidèle la ñu gën ko ci ràññee Edu ginnaaw ba mu jógee mbarooti fa la infidèle ci série ba mu doon joué moom ak faama cun ba faama dégg alxayri edu ndaw boobaak léegi kenn déggatu ko waaye itam kenn gisatu ko ma ngay làqatu di def ay mbiram ndànk-ndànk tey xëy nañu gis edu ndaw mu daal di partager ay photo yoo xamante ne bi ay photo yu la fépp ci réseau social ku nekk naan edu ndaw ndax la fay yëngu léegi ci domaine mannequinat am déet beneen sëy boo xamante ne bi itam amaat alxayri jib na ci diggante xalifa rappeur xale bu jigéen boo xamante ne bi ma ngi ko takk mu doon xale bu jigéen bu jongama boo xamante ne bi ña ngay gis ay photom ñu daal di ko partager ci réseau social Khalifa rappeur ci fàttali moo fi nekkoon suba teel musique te itam daan ànd ak Sidi Diop Khalifa rappeur moom itam kenn déggatu ko waaye itam kenn gisatu ko woon dafa mel ni la nga xamante ni bi daan ci yëngu nekk ci réseaux sociaux yi mu mel ni fi mu nekk nii dafa dellu ginnaaw bu baax a baax a baax a baax jamono yee rek ku ci nekk yaa ngi doon laajte naan Khalifa rappeur fa mu nekkoon dafa nekkatulam am déet ñu daal di xëy gis ci internet bi mariage ab Khalifa rappeur Khalifa ñëpp di ko souhaiter heureux ménage wax wax ci Eumeu Sène mi nga xamante ni bi teewul woon ci Bercy Pikine bi Eumeu Sène mi bëggoon a teew ci Bercy Pikine bi te itam amoon ay gàllankoor a tax na teewul ci Pikine goog nga xamante ni bi fa la juddoo waaye itam fa la fekk baax loolu it di mbir moo xamante ni bi mbir mum doon naqarlu la mbir mu ko metti waaye itam fay na ko ndax it démb dafa demoon ci vok fekke ji soirée Wally Ballago Seck la mu rate woon ca Bercy pikin bi ñëw na ci soirée Wally Ballago Seck ca vok dal di ko ko fay si Eumeu Sène ba mu yegsee ci soirée bi ñu daal di seen ci kanamu Wally Seck mbég mbégte gu yaatu mu di ko way di ko kañ naan ko Eumeu Sène ñoo bokk maam ndax itam Samba Xoyaan mooy sa maam te itam mooy sama maam Eumeu Sène jàpp loxo Wally Ballago Seck naan ko man ak yow ñoo bokk deret deret ji daw ci yow mooy daw ci man moo tax ku la laal laal ma man Eumeu Sène joyeux anniversaire yaa Awa Dieye loolu la équipe boobu kàkk tar gi yëpp wax yaa Awa Dieye moo doon anniversaire ñi nga xamante bi ñoom lay liggéeyandool di muy wa kàkk tar nekk ca groupe Futur Média daal di ko réserver ab surprise bu mag a mag a mag animateurs yi nga xamante ne bi ñoo nekk ca boobu émission ak animatrices yi daal di ko defal ay surprise ca plateau ba yaa awa daanaka émotion def ko jàpp ba ba muy wax mënu la ay waxam ki nga xamante ne bi mooy baxaaw itam daal di ko bett indil ko ab cadeau di bég bu baax a baax waaye itam yëkkati rek ay kàdduy seede yoo xamante ne bi ma ko jëmale ca ña muy liggéeyandool di wax naan ay nit lañ yoo xamante ni nit yu rafet xol lañ daanaka ñu ci bëri ci ñoom ñooma mag waaye dañu maa déggal jaamaan mi fi nekkoon express ak bi nga xam xamante ni jël na ko jébbal ko waa ministère de l'économie numérique la ko waral mooy jaamaan nee na dafa am ministère boobu benn tournée boo xamante ni bi ñoo ngi koy waajal daal di jekki-jekki jëlub photo ne ko dàng def ko ci ay ta te itam tàgguwuñ ko benn yoon yëgaluñ ko jaamaan ma ngay wax rek ne ministère de l'économie numérique dañoo bëgg utiliser li dem image am ci lu mu yëgul tinul jaamaan ma ngay wax naan mbir mi ko naqari la ta itam neexu ko tey te itam neexu ko ëllëg li la waral dina porter plainte yóbbu mbir yi fa mbaxana doone benn lum ci am jël Dramane ma ngay rassuré waat ay fansam waaye itam di leen gërëm di wax rek ne jàpp giñ koy jàppale boobaak léegi lépp muñ koy gis waaye nañu ko gën a jàppale ngir mu gën a jëm ca kanam gën am ndam ci combat bi nga xamante ne bi sumb na ko moom Dramane Wally Ballago sek ak Bercy Pikine bi nga xamante ni bi tëgg na ko barki démb njaw a nga woy di desandiw xammin di Bercy Pikine boo xamante ni bi coow la bari na lool ñu gis fa Ousmane Seck mu àndandoog Wally Ballago Seck ñu wayandoo ci kaw seen la jaaxal ñëpp mooy Wally Ballago Seck ba muy kañ Ousmane Seck ak di ko way way na ba noppi te itam amul fenn foo xamante ni bi tudd na fa Mandiaye sek li wétte wóor mooy ñoom ñaar def nañ duo bu am solo Wally Ballago sek ma ngay wax Ousmane Seck naan ko di way sa maam di way sa maam yow mi yaay sama baay ndax yaag coon Ballago Seck yéen a bokk ndey baay mu nekk duo boo xamante ni bi duo bu daw yaram la diggante Ousmane sek ak Wally Ballago sek boobu la duo ku ko fekk rek xam ne Wally Ballago Seck dëgg-dëgg ku mën a way la waaye itam Ousmane Seck ku maîtriser ay way la ñoom ñaar seenub duo tey ji fépp ci internet bi ñu ngi koy partagé leneen lu ñu nemmeekuwaat ci Bercy Pikine ba moo di show bi nga xamante ni bi maam Ndiaye Savon def na ko fa Oulimata mi nga xamante ni bi moom mooy ab concurrence am ba mu ñëwee ca Bercy Pikine ba dafa laxasu Wally Ballago Seck di jooy jooy yu metti Wally Ballago Seck xàmmeewul woon Oulimata waaye dafa mel ni Oulimata boobaak léegi internet yi ñu ngi ko ciy dal lu nekk ñu ngi ko koy yàq naan ko maam Ndiaye Savon mi nga def nawle du sa nawle maam Ndiaye Savon mi ngay diiral mbagg jiitu na la sànni karawaas Bercy Pikine leneen lu ñu fa nemmeekuwaat moo di Wally Ballago Seck ba muy way ba mu yàgg dafa jekki-jekki jël mbubb ma mu soloon daal di woo ki nga xamante ni bi PDG wu Feeling Dakar di bam Bamba Diop daal di ko xool ci mbooloo mi woo ko ba mu ñëw mu yëkkati yëre ba mu soloon jox ko ko mu di geste boo xamante ni bi geste bu rëy la waaye tam geste bu mag la ndax bëriwul lu muy summi mbubboom di ko joxe ñi ko njëkk a gis mu subbi mbubbam jox ko Makutu Konte ca Gàmbi keneen ku mu yëkkatiwaat ab yëreem jox la moo di Bamba mi nekk ci Feeling Dakar xamante ni bii def na ko saa yu gisee bamba mi nga xamante ni bi moo njiital Feeling Dakar daal di ko siggil sagal ko li ko waral mooy bamba mi nga xamante ni bi mo njiital Feeling Dakar moom ak Wally Ballago Seck ci ay débéem la ñu àndoon te boobaak tey dara ñaawati moo tax saa su nekk Wally Ballago Seck di ko gën di tatagal waaye tam fu mu ko di ko sargal ak di ko delloo njukkal Ameth Thiou fi yëkkati woon ay kàddu bërki démb ne kontaanul ci Wally Ballago Seck te itam ginnaaw bi mu padros ba tey tuddul Wally Ballago Seck gis nañ ko mu njëkk a tudd Wally Ballago Seck ginnaaw ba mu demee ca bitim réew ametcu show ba nga xamante ne bi doon na ko def ca bitim réew ñu seen fa Mapenda Seck muy duyoog Mapenda Seck ba muy duyoog Mapenda Seck ba mu yàgg ci la yëkkati ay kàddu di ko wax naan ko Mapenda Seck gis naa ni ku bëgg Wally Ballago Seck nga ku am cër ci famille bi nga nekk la waaye dama bëgg sa doom ji di Wally Ballago mu ubbi ay bëtam xool bu baax a baax ndax dafa war a xool te fi mu nekk nii dafa war a ràññee ñi ko bëgg ak ñi ko bañ Mapenda Seck li ma njëkk a wax mooy ametcu kontaanuma te itam li ma lay ñaan dama bëgg nga defal ma ko rëccu naan ko mapend billaahi barke Serigne Touba li nga ma ñaan dinaa ko def wax jooju ba ko Ameth Thiou waxee rek ñëpp a ngi jàpp rek ne Ameth Thiou mapend daf koo ñaan ngir mu jubóog Wally Ballago Seck ñu mën a njort ne Ameth Thiou dina ñëwaat jubóo ak xaritam bi nga xamante ni bii moo di Wally Ballago Seck ñoom ñaar seenub duo ca kaw seen ba waaye ay kàddu yoo xamante ne bii ña ngi koy échanger diggante Mapenda Seck ak diggante Ameth Thiou Ameth ma ngi koy wax banaan ko yaay bàyyi Wally Ballago Seck yaay bàyyi Mandiaye waaye itam yaay bàyyi Bambali te itam ku la xam xam ne ku diñ nga ku la xam xam ne ku am personnalité ku la xam xam ne askan wi nga nekk kenn gënu la ci waaye itam dama bëgg nga wax ak xale yi dama bëgg nga wax ak sa doom mu gën a ràññee bu baax a baax gën a xool fi muy tegub tànkam Wally Ballago Seck El Ramdan bu ñu kenn sonal sa billet gars yi lañ jëm mois de juin mu xale yi def tuuti chap ngóor yi def ay déchiré ma génn fi ma sàpp lan daañ bëgg leen le 3 juin 2023 yéen a laaj seen bës yi noonu dem leen ngeen jënd seen biir yi nag bëgguma benn coow bëgguma coowa ah. la ilaha illallah kenn mës ta gis nii ay Wally Ballago Seck nga sa dëkk